gars yi ñu ngi leen nuyu den ziar yéen ñi ci Front Sport ñu war a ñëwee ci benn vidéo wàcc ci suñu zone bi nga xam ne moo nekk Ismaila Jakobs nekk latéral bi nga xam ne coupe du monde bi kenn ko fàtte Aliou Cissé nag publier listam vendredi bi jàll mu bokkoon ca tey na ñu gis ne mën naa koo doon football mais bokkul sax ci liste bi ñu convoqué ndax ci benn blessure boo xam ne am na ko ci âge bi ci âge bi la ko jël mu nekk blessure boo xam ne dañuy laaj boo xam garaaw wala garaawul xëy na amu ko ci information mu nekk loo xam ne nag ak ñëwum ci convoqué bi ko wóorul est-ce que dañ koy remplir est-ce que dañu bàyyi noonu est-ce que bi sama gars yi ba lañ cee ñëw nag abonné leen ngeen partager like ngeen ñeen xaar bi suñu seen Sen Sport yeneen jàngat sama yi comme noonu nga ko gisee rek ki nga xam ne mooy Saliou Ciss moo nekk noonu est-ce que amul sens pour moom Saliou Ciss ñu woo ko mu jéem a remplacer ki nga xam ne mooy euh, euh, euh, Ismaïla Jakobs bu dee Baye Sylvain nekk court boo nekkul courte durée nag man nañ koo bàyyi mu ñëw ci groupe bi toog ndax euh, man naa place titulaire bi Salisu moo a ñëw wala muy nekk mais nag euh, blessure xëy na garaaw. moom ki nga xam bi am na am technique bi centre marquage bu seen day ñëwaat gën a maintenir ñu xool Ismaïla Jakobs ak football Afrique nan la koy seeree. escalier mënoon ci ko du mënoon nekul do bëggoon place wala lu man deug deug la gëna maintenir li nga xamne ne posom ndax bëgg na Ismaël Jacob bu tang jir ci max Ilima Toy pour CAN bi ñu jëm bala CAN na fekk xale bi ñor kon gars yi la ma nekk vidéo bi abonné partager like ngi ñi xaar ci seen ci mo sport ak yeneen vidéo ak yeneen jangat merci beaucoup sama gars am ngeen jaajëf